internet yi ni ñu leen ko waxee gis ngeen ko ci image yi macha allah ci suba ba léegi ñu ngi fii West Foire ci koo xam ne nag kenn la ci ñun muy Ndiogou Ngouda Amina dégg ngeen ko noonu la ko woykat bi waxee ah moo doon tudd am doom tuddee ko Abdou Aziz Ndiaye macha allah gis ngeen ko ci image yi mais ñu jàkkaarloo kenn koo xam ne ci ñoom kenn la ci ñoom waaw seen grand frère seen papa seen lépp ndax noonu lay dundee ak ñoom Ramadane Faramareen Youssou Dieng noonu lay dundee ak ñoom kilifa seen grand seen papa seen lépp mais grand nuyu naa la. fay nañ la doom de ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax a baax di nuyu internet yi ñuy seetaan ci Bour Gueweul TV ah di kontaan ci seen taxawaay nag ndax ci suba ba léegi vraiment yéen ngi taxaw taxawaay boo xamante ni daf ngeen da ngeen xam ne rek yëf yi seen yëf la te loo bokk lu ne doo xaar ku la ci woo kon vraiment. duñu def lu dul remercier leen di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla nag euh, saxal ànd bi ndax ñun nii la ñu ànde nii la ñu war a ànde donc dañuy ñaan yàlla mu saxal ko mu gën di rafet oui mu gën di nice ni waxee ci introduction bi ci suba ba léegi ñu ngi fi seen sa sa rakk sa xarit sa lépp tey amoon bi su mbégte suñ borom may ko tuut tànk mu ko doon tudd macha allah kàddu yaa ko yoroon li fi xew yëpp gis nga ko jarut ñu lay poser question. <laughs> waa sant yàlla xam nga euh, yàlla mooy mooy dogal ànd. Euh, man euh, géwël laa waaye du ma dégg du ma géwëlu kenn xam nga ma doon géwëlam ku ma yëg ak ku nangu ma doon géwëlam yaakaar naa ne dem ci xew wala dugg ci tànt gis Youssou Dieng taxaw ca géew wax bariwul loo koy gis waaye yàlla daf ma booleeg rakk yoo xamante ni dañ ma bëgg jox ma cër respecté ma xam may kan ba pare nangu ma yilif leen donc bu ñu xewlee duma def lu dul taxaw ci ba ñu xam ne sama rôle ci ñoom mooy taxaw leen xam nga bu bu bu bu xew amul ñooy nekk njoogu mun naa ne deux jours yu ne ñoo ngi këram këram laay nekk guddi ak bëccëg soxnaam baax lool Fatima di ñu toggal di ñu jox di yàkk di ñu jox di taaj muy rafet ànd ak jàmm di kaf di ree ah, ak ASC bi yëpp donc bu xewlee nii rek lañ ko mënal mooy taxawu ko xamal ko ne ko euh, xew bi suñu mbégte la waaw te dëgg dëgg xew bi suñu mbégte la moo tax ma taxaw ndax nag euh, samay rakk lañu waaye samay xarit lañu. Ah, man mii nga xamante ni euh, melu ma neen te lu ñuy def lu ne na ma loo ci xam ak nu ñu koy defee xam nga donc je ne peux que leur rendre la monnaie <laughs> loolu rek la. ni nga ko waxee ñu gis ko bërki démb ci seex ñaan ñi ngi fa woon taxawaay bi nii la woon tey njoogu taxawaay bi nii la woon soo ma mënee leeral tuuti rek ci sa diggante ak ñoom. non loolu la xam nga diggante bi du dara lu dul euh, euh, relation la bu nice bu ñuy ànd yàlla boole mm-hmm. mais ñu fexe ba respecté fexe ba bëggante. Mm-hmm. tu vois euh, fexe ba ku ci nekk xam sa moroom mooy kan ku ci nekk yéene sa moroom ku ci ne fexe ba lu ci sa moroom ne rek nga ñëw nekk ci ak moom te loolu mooy ànd. ànd fekk mënul loo yéene sa bopp nga yéene ko ki nga àndal ànd boobu dafa des. Mm-hmm. donc ñun noonu la àndee te nag. ñuy sama ay rak comme ni ma wax ba pare jox ma cër bi ah donc man lu ma mën ba bu ñu génnee rafet rek loolu laay def. waaw loolu mooy sama ci ñoom vraiment. nga wax ko nga ànd ak seen rak sa rak ngeen di liggéey ak ñoom muy Wally Seck nekku fi. mais Youssou Dieng ak Wally Wally buy wax ci Youssou sax euh, beneen affaire lay doon mas nañ ko dégg mu ne Youssou moom soxlawuma sax man maa ko soxla <laughs> waaw sa diggante ak Wally waaw. waaw moom tamit loolu moom nit la ko xam day joxe cër. te ku dul joxe cër doo am cër. Euh, li dal njoogi ci man moo dal waali ci man te moom nag Lat Diop Degen baay euh, ku ko xam-xam ne dafa am yar waali dafa yaru dafa mën a jox nit cër euh, da lay cëral ba da ngay mujj rus te nag boo dee gor lu la sa jox rek dangay fexe delloo ko ko boo mënul def lu ko ëpp góor góorul ba delloo ko lam la jox te euh, respect boobu la ma jox yéene boobu la am ci man considération boobu la am ci man Waly euh, damay wax toujours ne boo gisee ma yéene ko euh, daf ma nangul waaw daf ma nangul xaw naa am xam-xam de am na lu ma xam oh, am xam-xam am xam-xam ñun xam nañ ci dara macha allah. Ah. waaw xaw na xaw na am lu ma mën de. wër naa réew te wax fa dëgg yàlla aar bi yàlla dogal ñu ne ci di ci yëngu am na am na lu ma ci mën. ndax ba jàng ko jotee jàng naa ko ba mun. ba mokkal jotee góorgóorlu naa ba mokkal. waaye mënoon naa ne pat moom di def li may def te ma sàmb du ko gis ma demb du ko gis mais bu ma ko mënee def. Hmm. ak ak yéene ak ak ak ak lu ma def xeeb ko sa parce que ki ma koy defal dafa xam maay kan loolu il a réussi à xam nga xam nga jël li ci man parce que dafa dafa dafa jaar ca yoon ba <laughs> bu jaarul woon ca yoon ba du ñu daje mukk kon kenn du moom lépp moom la moo tax lu ma ko defal yéene ko ko lu ma def xeeb ko lu ma xam ne dina ko jëme kanam lu ne ma def ko lu ma xam ne dina ko defaral ma def ko lu ma xam ne dina dina taaral mbiram mbiram ma def ko te du ma ci du ma ci du ci am demi mesure waaw dama ciy dem ba jeex mu mel ni sama bopp laay defal. c'est parce que nga féete ci moom yombul ndax xam na ñoo xam ne bu ñu nekkee artiste ku mel ni Wally mën nu bañ a doxale neen mais yow dañu gis yow sa diggante digganteem ak ñeneen ñi digganteem ak artistes yi digganteem ak ñu mel ni ñun wala ñeneen ak ku mën a doon da ngay bëgg toujours di fexe muy rafet. di di di boole mais loolu mooy yoon. waaw ndeysaan soo dugg sama mag ji dafa wax lu am solo. dafa ne na rafet. ndax bu baree jeex. bu néewee jeex. gannaaw bu baree jeex nag bu néewee jeex. te bi ñu juddoog léegi yàggul sax waaye am na ñeneen ñu fi newoon. yor li waali yor. am na ñeneen ñi fi neewoon ne fi waali ne. Mhm. te tey newatul ci seen i loxo. kon euh, mënuñu lu dul xamal ko ne ko dafa war a rafet. dëgg rafet jëme ci ay mbokkam d'abord rafet jéme ci ay nawleem rafet jëme ci ay ay ay ay xaritam ak ay musicien mag képp ku mu am ku mu doon parce que yàlla mi ko jox du ñàmbaara ma tax mu jox ko ña yàlla xañit du seen yaafu sa tax mu xañ leen donc euh, nit booy ànd ak moom mu am dayo bu ko yàlla may fàtte da koy yomb boo dee nit nag da koy fàttali et man euh, je fais que lui xam nga nii la war a demee. bu demee woon nii lay gën a nice. xam nga. Ah, euh, dellool yàlla njukkal. loolu laa dëkkee di ko wax waale. Mhm. dellool yàlla njukkal. parce que boo juddoo ci réew gënoo waa réew ma du ci juddu du ci daraja du ci dara. Mhm. yàlla jël la def la def la ci seeni def leen def la yow ci seeni xol. Mhm. may la lu mu leen mayul. Mhm. boo bëggee delloo yàlla njukkal. rafetalal jëme ci nit ñi. waaw lii rek la. te ñun loolu lañu xam ñemewuñu leneen ñun fexe nañ ba rafetal suñu digganteek suñu nit ñi. nit ñi lan moo tax ñu yàq ñeneen ñi ak nit ñi fa dëgg yàlla man saa yu ma xëyee lu ma rafetalee sama diggante ak nit ñi. loolu laay def ndax euh, looloo tax ñu ne fi bu rafetee rek mu neex. Mhm, mhm. waaw ku ko gàkkal nag. dina naqari te bu neexee ci sa bopp ba nga defe ne euh, ci yow rek lay yem bis dina ñëw nga bëgg mu neex mu naqari ci yow. <laughs> ñu ngi ñu ngi ñu ngi duñ lu bari mais ñu ngi for tuuti ci ci li ñu gis ci li muy liggéey Amérique mais lu ngeen di waaj ndax liñ jot a gis ci image yi waaw macha allah doy na waar. waaw mais xam nga Waly moom au fait dama doon damay damay wax chaque jour ne ndeysaan euh, yàlla nañ ko jëriñoo. ndax ah. <laughs> ah, damay ragal bu ci tubaab yi jotee ñu ñàkk ko. waaw waaw. déedéet ah, que ñun seetluwuñu Wally ci ci ses qualités ak euh, talent bi mu am. Hmm. xam nga. Hmm. ñun koo wax Wally ci mbaax mi lay wax ak. Hmm. yéwén gaak xol bu rafet baak waaye talent baa ëpp. comme ñun nag lijjantiwuñu talent bi bu ci tubaab bi jotee ñu xam. barke alxuraan karim buñ ci jotee nga xam buñ ci jotee. waaw ndeysaan <laughs> yàlla nañ ko bokk. waaw c'est parce que ah, ah, Chris Brown. level bi kawe na. ah mais oui. waaw ku mën a dem ba ba ba ba di ak moom wala ngay diyo ak moom loolu. ba ba pare li ci gën a neex sax xam nga mooy lan. Hmm. Euh, morso yi yi leen neex ñoom ba ñu bëgg ci ànd ak waali fii lañ ko defaree ñun ñii ñoo ko defar Sénégal lañ defaree morso yi donc day wane ne mu ngi góor góorlu day wane ne la musique sénégalaise mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi avancé fa mu ko fekkoon mu ngi fexe di ko di ko puus am fu mu ko yóbbu muy nag mission boo xamante ni ñëpp war a ànd jàppale ko parce que c'est le Sénégal qui gagne quoi tu vois c'est le Sénégal qui gagne et musique sénégalaise la ñuy wax kon na ci ñëpp jàpp te ñaanal ko mu àggale ak sagoom merci grand kontaan jaajëf bëggee Cheikh ñaan waay